rasulillah wasalaamaani ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala maa ngi tàmbali samay kàddu ci tur sunu borom di wax bismillahi rahmaani rahim di sant sunu borom di julli ci ab yonantam ak ñooñam ak saabaam ginnaaw loolu noo ngi nuyu waa daara ji yëpp nuyu islaam te mooy asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. am mbégte ñu dellusiwaat ak yéen tey jii. di sunu ñetteelu jotaay ci waxtaan wi ñuy def ci àll wirdul maxuus te dañ ko defaloon muqaddima jotaay bu njëkk ba ñëwoon nañ ci liñ fas yéene waxtaan yi te mooy xam ne lan mooy baatu wird wax wird yi sëñ Tuubaa jaar ñëw ci wirdul maxuus ak ay nusu xam nga xam ne waxoon naa ne yor naa ci juróom benn yooyu yëpp danañ ko indi leeral ko benn par benn benn par benn farem pàcc ko danañ ñëw ci kañ la sëñ bi jot wird yi waaye danañ ñëw ci surut yi nga xam ne moo war ki jëfandikoo wird wi danañ ñëw tamit incha allah ci njariñ ak ngëneel yi nekk ci wird bi kon lañ doon wax ci jotaay bi weesu muy ñaareelu jotaay bi ci wird kon bu ñu ko bëggoon tënk rek soo ko tàmbali dañuy wax ne al wal wirdu kullu ibadatin taawadaha al insaanu min salaatin wa zikrin wa salaatin alayhi sallallahu alayhi wa sallam wird daal mooy lépp loo xam ne jaam bi da koo baaxoo di ko jaamu yàlla nit ki da koo baaxoo di ko jaamu yàlla moo xam julli la moo xam tudd yàlla la moo xam julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom la kon tey dañu ñëw ci nag ci wird yi nga xamee ne Sëriñ Tuubaa jaar na lu njëkk muy jot wird maaxoon bu ko defee wird wañ ci njëkk a jël nag te Sëñ Tuubaa jaar ci mooy wird yi Sëñ Tuubaa njëkk a jël te mooy wird maaxoon sëñ bi wird yu njëkk a jël ci lawraat yi nga xam ne ñett lañ mooy wirdul xaadir moo tax da ngay fekk sama turandoo ak Cheikh Mahamadul Bachir radiyallahu anhu ci minul baaxil xadim mu ne waxat talaxa min walidihi alwiz alxadri li annahu huwa wa xaalihu aljalil mahamadu sax kaana min zawihi walam yasal yaxmal ci siin sëñ Basiiru nee na Sëriñ Tuubaa mi ngi jëlee wirdu xaadir ci waajuram Maamoor Anta Sali ci la jëlee wirdu xaadir ngir Maamoor ak nijaayu sëñ Tuubaa sëñ wirdu xaadir woowu lañ yore sëñ bi jël ko di ko jëfandikoo kon leer na ne wir wirdu sëñ bi njëkk a jël mooy wirdu xaadir nga xam ne sëñ bi ci ak waxamaaneem ci njëlbeenam la jëloon wirdu xaadir jëlee ko ci waajuram Mamour Anta Sali Mamour Anta mm, mu jëlee wirdu wowu ci ñu bari waaye mën nañ caa tudd Sàmba Tukulóor Ka Sàmba Tukulóor Ka jëlee ko ci as Seex Sidil Kabir boo demee ci an nubsatul mubarak bu as Cheikh Mouhamad Lamine Diop Dagana mi ngi naan mm, foofu ba tey it mm, Cheikh Ibrahima te foofu mu wax ne Cheikh Ibrahima moom moom lañ tuddee maam Thierno ci an nubsatul mubarak nee na moom Cheikh Ibrahima moomu mi ngi jël wirdu xaadir ci Cheikh Sidi Ba Cheikh Sidi El Kabir Cheikh Sidi mu mag ma ci moom nag euh, Cheikh Ibrahima moomu axasa kasirun min kubaari min kibaari ahli Kajoor ci moom Ibrahima moomu la ñu bëree bëri euh, jëlee euh, wirdu xaadir ci kilifa yi nekkoon Kajoor kon Mamour Ansari jël na ko ci. sàmm tukulóor ka waaye jëlee na ko ci Ibrahima moomu Cerno Ibrahima mi borom nu mu wax ne moom lañ tuddee maam Cerno boo demee ci minul baaxul xadim ginnaaw bi mu tuddee sàmm tuk sàmm tukulóor ka ak dem gi mu demoon ci Ali Cheikh sidia dane sàmm tukulóor ka nag bi mu ñibbisi dafa ñëw indaale al wirdul maskuur te mooy wirdul xaadim nee nag di leen nettali baaxaay ga ma gis ñoom. ba ñoom Maamor Anta Sali ak mag ñi nekkoon foofu euh, seen xol dal ci ñu jël ci moom nag wirdu xaajir mu ne su nag suma min Ceerno Ibrahima ba'dahu tajdidan ginnaaw gi Maamor Anta Sali jël na wirdu xaajir ci Ceerno Ibrahima yi ma wax ne moom lañ tuddee maam Ceerno Faati tam wax ko ci an-nubsatul mubaarakatu Maamor Anta Sali ci moom wirdu xaajir tajwid boo ñëwee ci an nubtatul mubarakatu bu ak Cheikh Mouhamadou Dagana radiyallahu anhu mi ngi naan sama tukulóor kam dafa jàngee ci Ali Talib nga xam ne axwaalu maxnes baaba lay foofu la jëlee al wirdul xaadir jëlee ko ci as sid Seex Sidi al Kabir ginnaaw wa minhu axasa waalidu cheikh waxaalahu saaniyan baxda an kaana axasa min siidi daara ci sama tukkuloon kan nag la Maamor Anta Sali ak sëñ mu soobee jëlee wérdu xaadir sëñ Ibro sama tukkuloon kan ko wax jëlee ko ci ak Cheikh Sidiel Kabir waaye mu ne baxda an kaana axasa min siidi daara ñoom dafa mel ne lu jëkka loolu fekkoon nañ jël wérdu xaadir ci ku ñuy wax siidi daara awalan baxda an kaana asasaa min fi daar awal kon Mamour Ansali moo jox sëñ bi wirdu xaadir Mamour Ansali jëlee na ko ci Siri Daara Mamour Ansali ko ci Samba Tukoor Ka mu jëlee ko ci Cheikh Sidi El Kabir waaye maam Mamour Ansali mi jox wirdu xaadir sëñ Tuubaa jëlee na ko ci Cerno Ibrahima Cerno Ibrahima moom ñu tuddee maam Cerno jëlee ko ci. Eh, Cheikh Sidi El Kabir kon silsila boobu mi ngi noonu sëñ bi jëlee na ko ci waajuram waajuram jëlee ko ci ñetti ñooñu eh, borom nuftul nuftul mubaarakatu radiyallahu anhu nee na Cheikh Samba Tukulóor bi mu jugee gànnaar ànd ak xam-xam boobu dafa fekk waa Kajoor ak bawal ñu ci ëpp wala ñoom ñëpp ñu nga woon Saalum foofu la fekk. Mamour Ansali booba ñu nga Porokhane Mamour Ansali dëkk ak moom digal ko mu dëkk ak moom mu féetee mu féetewoo di jàngale kon Samba Tukulóor kat bi muy jox euh, bi muy jox sëñ bi bi muy jox Mamour Ansali wirdu xaajal booba ñu nga kon mën ngaa wax ne euh, sëñ Mamour Ansali mm, mi ngi njëkk jëli wirdu xaajal ci Sidi Daara ginnaaw fa mu jëlee ko ci sàmmatu koor ka ginnaaw ga mu jëlee ko ci Cerno eh, Ibrahima ñi ma tuddoon léegi ci moom nag la ko sëñ Tuubaa jëlee boo demee ci minul baaxal xadim bu Cheikh Mahamadou Bassir page 234 te mooy yaakaar naa mool bu mujj bi nga xam ne tàqe bi ku ko def mooy docteur Mouhamad Sakhrul te académie mi nel baax def ko muraaja ca page 234 da nga ko fekk sëñ bu di wax loolu ne kon sëñ bi ginnaaw bi mu jëlee wér xaadir ci noonu ginnaaw bi mu defee tàqiqi la lam am doyu ko fa saxaba ilal xaaji kamara ci ndar wa kaana mimman taxarraja ala yadi seex Sidiya wa taraddada ilayhi miraara loolu mooy sëñ bi jël na wirdu xaadir waaye ginnaaw gi doon def taqiq lam ci am doyu ko mu dem ndar ci askamara dem foofu askamara bi mu tamit sëñ ba jël fa wirdu maxuus te alkamara boobu ci Cheikh Sidiya mu mag ma la jële wirdu xaadir demam ba mu demoon sax ci ndar ci aas kamara euh, euh, borom sëñ Moussa Ka indi na ko ci marché borom daaru danaa ci ñëw man sama turandoo Cheikh Mahamadou Bassir radiyallahu anhu ci muy baa wax na ne sëñ bi euh, dem na ndar ci euh, alxaaji Camara ñu gën ko xam ci alxaaji Ousmane Camara bokkoon ci suyooxul xaadiriya yaakaar naa suma jumul mi ngi génn àddina 1889 moom sëñ Aas Camara moomu 1889 la génn àddina wax naa sànq ne sëñ Moussa Ka tamit indi na loolu indi na loolu boo demee ci marché boroom daaru sëriñ Moussa Ka mi naan ma wax la xatma Bamba xàndeek Cerno ñu seeti askamara ndar di farlu Cerno ko sant booba mook sëriñ daam muy sëriñ daam Abdourahmane Lo ba ñu demee Kajoor la beene sëriñ daam mooy la ko wàññi keroog la Cerno yenu junnib ngurdu booleeg yërëy Cheikh Bamba fii du garbu du garbi xam naa ne njàmme nit li koy malaaka mooy cerno ibra ibra mooy cerno faati wute musaaka ba ñu demee ndar ba siyaare maam aas te yenn ban ba te te ban ba ndar di laaji dépense sax fa ndar lil xaadil gilaani te lum fa sex cerno ko daa yalwaani Cheikh Bamba laaj na ko fa wirdu xaadir laaj na ko fa wirdu xaadir ngir bëgg a jokk ci abdul xaadir mu si abdul xaadir jilaani as naa ko tuugal muñ toogal muñ bul ma tàggu diggante Moussa ak xadir ngay sàkku sa mire ngeeg man démb laa la moor sàmba tukulóor ba laa doon sàkku yaa juróomi ñetteelil awliyaa yi ya war a yor wirdu wi fil alaa'i wasaaminu alxadiimu bamba ahmadu man misluhu fil garbi laysa yuujadu keroog la bamba xëy xëy na meng di waaja seet kunti yu faf na feng te mooma xat la toog fa ndar ba xaddi bay bëgg way ganaar bi xëy raddi keroog la diisoog cerno yoonu penku mu ne ko nan daldi rañaani tey tànku keroog la Bamba ñaan ci barkeb jiili naa daldi gis kuntu yu mbaate jiili rabbi bi jaahil Mustafa wa min duri wa man duri salaahu habli xuruji min ndari ba bësatee ñuy bëgg a dem la maam aas daldi taxaw ne Bamba yaa raw ñooñ faas gis naa la bii ngay bëgg a dem ba Makka te yaay ramu soo daan saxal fa Mbàkke saxal fi Mbàkke saraka ji mooy sa ndimbal ci baatin mooy sa rawaan maam Cerno yaa di maam Cerno yaa dim laakin def yette way jox ko fa ne jom addur wa nafxu min arrahmani laysa min albidaani wa sudaani addur wa nafxu min aljabbaari laysa min alfujjaari wal abraari addur wa nafxu min alwahaabi laysa min al aadai wal ahbaab yi yile bayit la Bàmba maam aas mu yor ko daal ne ko yéen a keroog la aas jox ko fa wirdu xaadir bi isni rabbil alamin al xaadir keroog la Bàmba jox ju dem ba maam aas mu naa ko fal naa fal naa la te aas naa ko jox naa la kajoor wa gànnaar ak bawol saalum jolof di xaar li lee taxoon ba daam demee jolof njaay ñoom dalaluñ ko dalaluñ ko gunóoñ ko ñoo aas ne ko ndaa di cerno faati fu mu mën a yem di saaxibul ayaati soo doon suleymaan moo di sam xibriitu dafan wa jalban mu ma dàq yootu jox ko malaanam cheikhu abdul xaadir mañ doon ne woon ci sëti bàyyub taahir mu boole kook ñàgg wa ak deram ba ak kurus ga ak kurus ak maam aas ga yor siroom ba ba ñu demee Mbàkke Kajoor la bàyyi daam xarloo mbalaan ma kañu naa sëriñ daam Cheikh Bamba dog na ko tubay ak turki Cheikh Abdourahmane moo ko ñaw ngir barke nee na puso bu nekk ak laaya ci alquran moo ma ko doon riwaaya mooy nett li bi ñam ma moom la Bamba reeree bisub keroog xaje ko lii kañu riin la ca desoon mu jox ko maam Cheikh Anta ne ko nga barkeeloog yaa di jant bis booy dajeeg tubaab yi ko ba seex di dem segu mu far lam mu far lamboo ko mu daal fab wirdu waa jox mu daal fab wirdu waa jox maam Cerno ne moo ko sant woon ba ndar mooy ba ndar mooy awnu te ne ko kooko may mu xam saada bila saxaawatin wa xarqal aada man Bamba Cerno ma ko may fa daaru alhamdulilahi ma sant waaru kon gis nga sëñ Musaa Ka nii la nettalee euh, demuk sëriñ Tuubaa Ndar ci As Kamara te As Kamara jox ko fa wirdu ma wirdu xaadir ba mu jële woon ci Seex Sidil Kunti yu ba noppi sëriñ bi joxaat ko maam Cerno ne koo ko jox mu am texe texe goo xam ne nii du ànd ak texe di koo ko jox mu am xotti baax ba tey maam askamara jox na ko fa mbalaan mu doon woon ci Cheikh Abdoul Khadir sëñ bi ñëw ko tubay ak turki la ci mu jox ko maam si anta ko nga barkee la ko booy dajeeg tubaab bi nga yóbbu la ko xoolal lii ca njëlbeenu sëñ bi la ca Tuubaa gu njëkk ga la woon ca Tuubaa gu njëkk la sëñ Tuubaa daa xam lépp jox ko maam si anta ko nag booy dajeeg tubaab bi nga yóbbu la nga xam ne ginnaaw bi suñ tubaab wàcc liggéey ñëw tubaab ci la maam si anta dajeeg tubaab bi mooy églé bi ko églé kon mbokk yi euh, lii mooy demok sëñ bi ndar ci as kamara jëlee fa wirdu maaxuus wax naa la sëñ tubaa jëlee na wirdu na wirdu xaadir ci baayam wirdu xaadir jëlee ko ci baayam wax naa ñi ko baayam jëlee waaye wirdu xaadir sëñ waaye dafa mel ne taxul sëriñ bi demee ndar rek taxul lam bëggoon dëgg dëgg nee na sëñ bi dafa dellu dafa dem gànnaar di seeti ñooñ Cheikh Sidiya fekk na Cheikh Sidiya mag ma faatu waaye doom di ñu wax Sidi Mahmoud moo ko wut woon moom itam soriwut ak baayam ginnaaw ko doom ju ñu wax euh, Baba Cheikh Sidiya moo fa nekk sëñ a moom la fa fekk mooy ak Cheikh Sidiya sëñ bi sax fa ab diir sëñ ba sax fa ab diir jël lañu amoon ak la ëpp ca fa xasala ala ma indihum ala ma indihum mu jël ca la ne woon fa ñoom jël ak sari ak sar asaari kutubim jël lu bari ci seen secret téere waaye dafa mel ni sëñ bi taxul euh, boobu aw maram maram jeex ma ne taxul booba aw maram jeex boo demee ci irwaaw na dim bu Cheikh Mouhamed Dagana da nga ko fekk tamit radiyallahu anhu mu naan wa fi hadihi lmuddati jaala cheikhu fi lbilad jaala cheikhu fi lbilad alwalafia min salum ila waalo barak wa saara kibaaraha alahya wal amwaat wa stajaasa asyaaqaha wa talaqa al awraada min ahaliha période yi ñuy wax lu sëñ bi wër dëkk olof yi tàmbale ko Saalum ba ca wàllu barak borom xam ñi fi nekkoon ñëpp ñuy dund ak ñu faatu mu siyaare leen ñoom ñëpp mu am ijaas ñoom jël seen wér xam naa loolu la koy dëgëral mooy li sëñ bi wax naan fa jultu baynal ulamaa wal awliyaa bi niyyati wa amali wa xawliyaa kay laa yudiixa umri ak aada li xukki sanin xaadi saaba wër naa borom xam-xam yi ak wàllu yi ànd ak sama yéene ak sama jëf ak sama wax ngir sama dund ba bokk na ci ñoom siyaar ji woon euh, euh, Cheikh Sidi bi mooy ak Cheikh Sidi Ibnul Mokhtar Ibnul Hayba Ibnul Ahmad mooy ak Cheikh Sidi El Kabir nga xam ne mi ngi gane àddina 1190 euh, génn àddina 1284 moo tolloog 1770 génn àddina 1868. waaye sëñ bi moom ne fekk na faatu nga xam ne bàmmeelam la siyaare bàmmeelam la wax euh, seen ndaw ji nga xam ne diggante mag bu tilimit war naa toll ci quatre vingt siyaare Cheikh Baba ibnu ibnihi fil Maymun moom itam kon foofu la sëñ bi jëlaate wirdu xaadir ci Cheikh Sidiya mi nga xam ne sëtu Cheikh Sidiya moom moom mag ma la foofu la sëñ bi wooyee as silsilatul xaadiriya nga xam ne foofu kon sëñ bi day jël silsilam silsilaam ci wirdu tàmbalee ko ci Cheikh Sidiya ba ci as Cheikh Abdul Xaadir kon dafa mel ne li ma amoon ci waxtu euh, fii la kon naa taxaw fii ba jataay bi di ñëwaat nag ma ci sëñ bi bi mu demee ci ba jël fa wirdu xaadir ak silsil su xaadir ga way gam ko fa way incha allah